sëriñ ko si Ahmad Bamba waxee ci axit sëriñu xamle mooy bi jiitu boo si jógee sëriñu tërbiya bi ca topp mooy sëriñu tarqiya kenn ku ci nekk am na ñetti charte yoo xam ne war nga leen a matal sëkk mooy tax mu mat ko sëriñu xamle bi na xam xam-xam bu wóor bu bari boo xam ne mu ngi tegu ci alquran ak hadis na am maanu dog lu mu xamul bu la réew daf naan la xaw ma ko te bu gisee keneen ku ko xam na la yebal ca kooko nga dem xam ko wala mu ànd ak yow dem xam lu ji ko wala mu xam lu ji ko ca kooko ñëw na la diw nee na nangam ñetti sàkk yooyu na ko matal cheikhu tarbiya mooy gi ci topp gannaaw bu melee ne kooku ba noppi na xam li ñuy wax psychologie mooy ilmu nafsi na xam bakkani doomu aadama yi ak seen misage maanaam seen tempérament na xam sopp ko jamono ak jaww ji ak sopp bu ci nekk li muy jëf ci bakkanu doomu aadama ak li muy jëf ci xolu doomu aadama xam itam xeexali jamono yépp fa muy jóge ak fa muy jaar ak bu ñëwee na nit ñi war a mel ngir mucc ca xam itam nan la ku mu dal koo xam ne kii loola fëkk na la nan la lay delloosee yooyu yëpp daf ko war a xam moo war a tax mu nekk cheikhul murab bi cheikhul murab bi day nit koo xam ne jaamu na yàlla ba saf saf ak yàlla nga xam ne cëram yëpp làgg na ci yàlla foo ko nga xam ne foo ko gisee rek sa xel day daal di dem ci yàlla nga xam ne boo toogee moom yàlla di la yëkkati nga jëm ci moom wax boo xam ne nit wax na waxam ni day mel ci yow ne garab boo xam ne mar na ñu suuxat ko noonu lay mel ci sa xol noonu lay mel ci teg roof kon ñett sëriñ yooyu ñooy ñu am Cheikh Ahmadou Bamba waxtaani na leen xam bi mu xam yooyu bokkul ak ni nga xam ne doomu aadama melo yu muy judduwaale te melo wu ci nekk ni nga xam ne noonu la posen di reyee dundu doomu aadama noonu lay reyee dundu xol am jikko ak jëf yoo xam ne day wowal xol day tax nit ki dara lu jëm ci yàlla duutu ko sax te day fàtte boromam fu mu toll yooyu mu di ko waxtu loolu nit ki te du du daf ko koy wax rek génn ca waaye day ànd ak moom di ko ca wommat loolu la cheikhul murabbi di def ak cheikhul murabbi ku nekk xam na ne reggaay bu ëpp day wowal xol ku nekk xam na ne nelaw yu bari day wowal xol te ku nekk xam na ne itam bu fekkente ne sëriñ bi dafay daje nit ñi wax leen dem ñu dem te la muy wax du leen dugg dugg goo xam ne balay dañ mu yàgg wala balay dañ ñuy gis gisati leneen lu mel ne noonu wala ñu dajee teeg moom la muy jëmbat dana jafe lool ñooñe bu ñu góorgóorluwul dimbale ko ca dana ñàkk mat loolu moo tax war na ci bépp cheikh murabbi mu def li nga xam ne noonu la sëñ Tuubaa daawoon def moo di sàkk jaww joo xam ne maanaam milieu boo xam ne ba kenn du leen rax ba ba nga xamee ne seen i jàngoro wér na ba àgg ci melo woo xam ne dara dootu leen yàqal kenn dootu leen mën a wàll tawat ñooñee kenn ku ci nekk mu yebal la ci béréb boo xam ne yow itam da nga fay def noonu bu yàggee réew mi dana daj ñëpp jub loolu moo doon li nga xam ne noonu la tàmbali woon doxal daan ko waxtaane gën a leeral boo seetee dundam bu mu jëlee tuuti ci dundam da nga gis ni mu tàmbalee ak njàmbaar gi nekkoon ci moom ak dogu bi ak fit wi da nga gisee ci loolu ne bépp nit boo xam ne bii jëriñ nga doomu aadama yi moo xam ci wàllu adduna wala ci wàllu diine melaw nga xam ne moom nga war a melawoo daan ko waxtaane xam nañ ne Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu bi mu fi nekkee ci ndaawam bi mu matee dal ñu jox ko Cheikh Mouhamad Bousso mi nga xam ne najaayam la moo ko dalal di ko jàngal ba am diiru jamono mu jox ko najaayam moom najaay yi najaayam mu di tafsir Mbàkke Mumbe ko koy amee ko di ko jàngal ba mu xaw waxtu alquran nga xam ne alwaam daal àgg na la taj dana ache dana si adaawa diggante boobu mu jóge fi dellu ca waajuram jàng fa farlu amee farlu boppam ba waxtu alquran da tàmbalee jàng xam-xam dellu ci fu ñuy wax cheikh tàmba tukulóor ki ñuy wax cheikh tàmba tukulóor di ko jàngal xam-xam di ko jàngal ba mu amuk ñaw amuk yeewu mu dellu siwaat xam ngeen ne tafsir ma ba jaxu du muy jaar ci réew mi dafa sangoon sëriñ seeg borom xam-xam yeeg buur yépp yóbbu nekkoon fu ñuy wax Saalum bi nga xamee ne moom si boppam rey nañ ko ci toolu xare bu ñuy wax somb waa réew mi waa Njàmbur ak Bawol ak Kajoor ñëpp dañoo dellu siwaat ñi ci gën a bari Cheikh Tamba Tukulóor moomu dellu siwul woon Mamour Anta Sali moom dellu si woon na ànd ak Lat Joor la joor nag doyloo woon na ko naw ko bëgg ko ba nga xam ne bëggul woon di tàqali koog moom waaye Maamor Anta Sali mësula nangoo jaxasoog moom daf daan nekk rek ci dëkk fépp fu mu fi nekk mu dem dara dëkk bu ndaw boo xam ne du ko sori ba waxtu bu mu ko bëggee gis gis ko waaye du jaxasoog moom bii Lat Joor ñëwee te sanc fu ñuy wax kër Amadou Yàlla Maamor Anta Sali dem Pataar nekk fa Pataar boobu la ko sëñ Tuubaa fekk ba mu jógee Saalum ca Cheikh Samba Tukulóor ba mu dikkee fekk wattu woon na alquran di jàng foofu ci moom xam-xam di jàng ci itam ku ñu wax ahmadul yadani ma nekk ca njaañ di jàng itam ci yeneen ulama yoo xam ne jege woon nañu foofu di jàng di jàng bi nga xamee ne Lat Joor toxoon na kër Amadou Yàlla dem fu ñuy wax Sugeer Maamor Anta Sali daal di dem sañ ci foofu fu ñuy wax Mbàkke Kajoor ba tey jegeeg moom noonu bi mu nekkee Mbàkke Kajoor sëñ Tuuba ànd ak moom ñëw fa xam ngeen ne Mamour Anta Sali ñaari at la fa nekk dal di génn àdduna ñaari at yooyu fekk na sëñ Tuuba am na xam-xam bu doy waar bu bari ba taalif yu bari woy na ko di ko jàngale ba Mamour Anta Sali sax jàngale ne ci téere yu bari woyam boo xam ne moom sëñ Tuuba ji bu xam ak li muy ndaw ci at yépp moo ko bind Mamour Anta Sali jàngal ko ay doomam ñenn ci ay doomam ak ñeneen moomu lanaa wax ne ci at mi nga xam ne Mamour Anta Sali jóge na fi at mi ci tegu bi ama ay si ndax sin la fi jóge maanaam bi gàddaay gi amee junni ak ñetti téeméer xam ngeen ne dégg ngeen ñuy wax ne ba ñu koy denc sëriñ tay bu moom nga xam ne moo ko jullee woon bu ñu àggee ca bàmmeel ya ba ñu denc ko ba noppi bi ñu fa daataan jóge te mu waare waare woo mu waare nee na Ahmadou Bamba ndax booba ku nekk xam ne ne Ahmadou Bamba lañ ko daan wax wala Serigne Bamba wala Ahmad Sall ndax kañ ko tuddee bi mu ko woowee fekk mbooloo mi bari bëggulee jéggat mbooloo mi ba agsi ci moom mu dox tuuti ba wan ko ne li ngay wax maa ngi koy dégg moon ko ne dama bëgg mu jógee fii ma ànd ak yow ak mbooloo nu dem fekki Lat Joor bu ñu demee ñu jaal ko ndax sëñ Mor Anta Sali xaritam la woon lool ñu gërëm ko sant ko sàkku ci moom it mu teg la fa nga xam ne fa la tegu woon fa la Mamour Anta Sali tegu woon ah loo xam ne lii rek aajo woon na ko nga di ko ko xamal ah bët boo xam ne ab atte am na itam buy boo xam ne bi bu xaw a jaaxle la nga atte ko mu won ko ne li nga wax de dem jaale ji ko ànd naa ci waaye nag dem mu dima teg fenn laa dul def ndax rus naa malaayika yi di ma xool may dox jëm ci buurub adduna boo xam ne bii dama fay wuti dara ci yoo xam ne darajey adduna wala njëriñal adduna daa ngeen dégg itam ñu ne ni nga xamee ne baayam daana ko diggaale ak Lat Joor ak li mu ci wattandiku lépp ba daawul nangoo dëkk ak moom it teewul loolu sax sëñ bi daana ko ci yedd amoon na teggin ba du jànlo moom wax ko dara waaye daana ko bind di ko sànni ci kaw lalam di ko wan ne moom de moom ci jëmmi boppam bu doon moom ñii dana soreeg ñoom ni penku soreeg sowu ndax kuy wut àddina ak kuy wut àllaaxira waruñoo ànd yoon te mënuñoo ànd yoon kon bi nga xamee ne wan na leen loolu mbooloo mi dal di amuk séddalikoo ñii ñi ngi jaaxle ci kii nit daal doy na kii man ndax ñi nga xam ne ay baayam lañu woon ak ay maasi baayam lii ñu nekk te nit ñëpp kenn yeddu leen ci ndax jàpp ne bokk na ci li gën a jub moom xeet na ko ba seexlu ko tey xaleel moom daal doy na waar am ñeneen ñoo xam ne itam seen xalaat moo di ne kii day du nit maanaam dafa xel mi dafa des ndax ji teraanga ak nii koom ak ji war ma kuñ koy jox xam ne sonnuloo si nga di ko wacc kooka doo nit ñooñu la doon tontu ci qaalu safihun li sarfi an humu basari way na leen way woo xam ne dafa leen a wan ne waaw waaw jàpp ngeen ma dof ndax li ngeen bëgg defee na loolu rek ay dara xam naa ne loolu du dara ba ma woon loola gannaaw moo tax ngeen di ma teg dof weneen way wa ca def muy qaalu li yarkan li abwaabi salaatini taxum jawaay sa toxni kullama xiini fa qultu xasbi rabbi waktafik bii wala atlubu xayra al ilmi wa diini borom xam-xam ba jaxasoon ak Lat Joor la ko tontu bi mu ko nee jàngal jëm si fii kon da nga am ci am am loo xam ne dootoo soxlawoo sonn dootoo aajowoo dara ñoom moom la tontu ne ko ñu naan ma jàngal jëm ci bu bunti buur yi kon da nga am may yoo xam ne dana la doy ci jamono bu nekk mu ne leen man yàlla doy na ma te doyloo naa ko takkuuma dara lu dul xam-xam ak diine ñuy ca way wa muy tawxid ju sell ju sottee sotti joo xam ne yet la woo xam ne dóor na ko képp koo xam ne fekkoon na la ci jamono ci jamono yooyu yële ba ak moomu nga xam ne mooy junne ñetti téeméer ak benn nga xam ne ci la Mamour Anta Sali ca déwén sa la nelaw ca daaw sa la nelaw ci la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam njëkk feeñu wan ko ne rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihum bi darsi mbooloo mi ànd ak yow na nga leen yare li ñuy wax himma daan ko waxtaane ci kanam waaye bu leen yare jàngal ca at mooma la tàmbali fekk ne li ko jiitu ak dañoon na ci réer waaye itam mënul woon a tëb leeral ko daana def léeg-léeg buy topp alluwee alquran ba mu yàgg muy gànneeru na ah lii day lu mag la alquran yàlla ji doomu aadama di ko jàng ba wattu ko nga xam ne fardu kifaaya la bokk na ci li nga xam ne day tax l'islam du réer ci kaw suuf nga bokk ci ñi ko téye ñi téye alquran lu ama am solo la waaye am na lu ko gën a am solo buñ ko mësee laaj li ko gën a am solo li lan la mu ne xanaa loola mooy la nga xam ne mooy tax nit kooku bu malaayika yi waxtaan ci malaw lala muy dégg la ñuy wax bu lawxul maxfus bu xalima ko di bind ci àlluwa bi day dégg ci ci jëmuy def loola mooy lu gën a màgg waaye wootewul woote goo xam ne bu gir la gu leer goo xam ne gii nee na nit ñëw leen ba keroog bi ko sallallahu alayhi wa sallam waxee loolu mu dal di jóg dajale mbooloo mépp ne leen léegi képp koo xam ne toppoon nga ma ngir jàng te ngir jàng donga nga man topp woon demal nga wuti foo jàngee ak ku la jàngal képp koo xam ne nag li ma bëgg nga bëgg mooy jëm ci yàlla nga ànd ak man des ci muy xew-xew bu mag ci seen diggante coow li bari lool ñii féete wet gee di xëcc seen i xarit ñii féete wet gee di xëcc seen i xarit kenn ku ci nekk di wax sa xalaat ak na nga gisee mbir mi muy mbir mu ama am solo waaye li ci gën a itteel moo di ne rek li imam Xasaali ne faridun anil xullaani fi kulli baldatin ida asma almaqlubu qalla almusaa'idu mutanabbi ne kul fa ida kaanat nufuusu kibaaran taibat fi muraadiha al ajsaamu bépp boo xam ne doomu aadama bakkan bu rëy la ko yàlla jox boo xam ne fu sori la nar a jëm war a am wàll wu rëy ci yàlla dana néew ñu mu àndal te nit ñi daañu ko wéetal dana dem ba defe ne moom doo nga nekk ci kaw suuf fépp foo jëm suñu borom ci boppam dana mel ne ku lay xiisee ak ku lay dëngee di la teg ay natt di la teg ay métit di la teg ay kii di xiir jaam ñi ñu di la soxare di la daw di la bañ bu fekkente ne nag yàlla jaamam boobu nar nag àggam dana ko wuññil ay dërëm bali jaam ñi umpale ñu xam ko dana ko wan itam def ci xolam ak dëgër boo xam ne fa mu jëm dana fa àgg te kenn du ko mën a wàññi bi mu defee loolu te mbooloo mi ñi ci ëpp gàddi ko dem ñi jàngi ñiy dem fa leen neex ña des ànd ak moom mu jógee dëkk boobu ndax xam ngeen ne ni ma waxoon léegi ne ci way yooyu mu tontu woon ñooñu ah ànd na ci borom xam-xam boo xam ne suñu jig lëkkoog Lat Joor la ak Lat Joor ci boppam gis nañu ne woyofal na leen doyadil na leen ba loolu xawoon naa am ci ñoom aw naqar la leen defoon naqar woowu tax na moom mi leen di daw ba ne jaxasoo ñoom ñoom itam daañu ko ragal daañu ko wattandiku itam ba gën a sore moom taalibe yi ko toppoon itam ñenn ñi nga xam ne wax na leen ne bu dee jàngale bi mën ngeen a wuti feneen ñoom it am na ci ñoo xam ne seen xol yëg na gi wéet ci moom ba mu nekk koo xam ne itam moom kese ak ñi mu àndal muy lim bu néew dong la àndal waaye ñooñu itam ba tey wéetali wuñ ko wéetaluñ ko ndax boobal li mu bëgg leen dong la lim ci leen dong la loolu dong nga nekk ci xolam mu mel ne nit koo xam ne liir la buy naam ba bis ñu feral ko gisatul yaayam mënatu la naam noonu xolam di mel ci yaayam noonu la xolam mel ci yàlla dara wéet wéetalu ko lu dul loo xam ne li du ko war a àggale ci yàlla la tamu di ko làmb te xamul fu mu ne gisagu ko waaye amul soxla ci nit ñëpp ak adduna bépp wan ko gannaaw wala adduna bépp ànd ak moom ñoom lay mën a kepp mu jógee Mbàkke foofu Mbàkke Kajoor dem Mbàkke Bawol xam ne maam Mbàkke Bawol moom la maam aram sanko sancoon waaw ba mu fa delloo gis ngeen xew xew ba fa am ndax doomu soxna li tubaab bi wax naan tubaab bi wax naan la grandeur est écrasante nit koo xam ne kii du sa sëriñ du sa dara du sa rakk la wala sa doom yàlla def ci moom loo xam ne foo toog yow da ngay mel ne ku dul dara te moom jublu ko sax waaye da ngay sew fi kanamam am na joomu adama yoo xam ne mënuñu koo muñ te ngir bañ a tàbbi ci détails yi ndax waxtaan wi leneen la lu gudd la te loolu lu ci néew la dama doon def istishhad rek na nga xamee ne ca jàkk yi julli ji ci imaam yi waa njatara joojee xew-xew ba ca amoon ba tax mu wax Cheikh Ibra Sarr jazaaka yaa xilli Ibrahima mawlaaka ak mu wax Cheikh Ahmadul Kabir أولاك مولاك تكريما وتبجيلا حتى تفوق به يا أحمد الجيلا ولا زني الدهر آداب قيدت بها ولا يؤقمت أنها قال أو قيل xew xew la boo xam ne moo tax ñu gàdd ko fa mu dem sañ ci daaru salaam ñeenti at yooyu nag ci la sëñ bi wëndeelu ci la doomu aadama yëpp waa bu jëm si ci moom ba mu siiw siiw goo xam ne nit ñi bari nañu ba xatal ko tax mu woccati mbàkke bawal dem Touba loola itam xew li nga xam ne noonu la bëgge woon taalib yi bañ a jaxasoo kenn ni ma waxoon sànq ne dafa war a nit ki nga xam ne murab bi dëgg la dafa war a ber ay nitam la muy jëmbat ci ñoom bu ko ci jëmbatee ba mu sax ba kenn mënatu leen a yàq mu soog jëlee naa mu soog leen a bàyyi ñu jaxasoo nit ñi waaye kenn ku ci nekk itam mu jox la kër goo xam ne da nga fay sos ñoom it ñu mbooloo mu mel noonu ñoom itam faj leen ba ñu wéroo noonu bu ko defee ñii di ko def ñii di ko def dana mujj jamono bépp ñi jub bari ñi kenn mënatu la yàqal bari ñi xam yoonu yàlla bari ñi mën a xet li bindeet yi bari loolu tax mu jóge itam Touba ba dem sos maanaam sanc Mbàkke Jolof la Touba Jolof foofa nag ak bari nit ñooñu ak it ñi nga xam ne ci famille yi nga xam ne ñoo daan nekk ci nguur gi te yàlla def amatuñu nguur te ñu dem di wétlikoo mbooloo moomuy dem ci moom di ko ñaanloo ak di làqu ci moom bari tax tubaab yi tàmbalee am ñoom it soupçon maanaam daal amuk ñaaw njort ci ne dana def ni Maba Jaxu defoon wala ni Ahmadou Seex defoon wala El Hadj Omar Fuuti yi defoon wala ñeneen ak ñeneen ba loolu tam loolu moo di li waral li sabab tukkee dem ci géej gi ba ni nga xam ne noonu la conseil privé bi dajee yooyu yëpp nag détails la yoo xam ne du ma ci tàbbi fii ndax li tax ma di fii moo doon wan misaal rek ci waa joo xam ne ji dafa jóg ngir war a xet li nit ñi faw mu dem wacc nit ñi beru mu di savant boo xam ne dafa war a inventé loo xam ne daf ko fi bàyyi nit ñi di ko jëriñoo ba adduna tukki wala muy philosophe boo xam ne dafa war a tëral doctrine boo xam ne nit ñi dañ ci dañ ciy jaar moo xam lu jëm ci yàlla la wala luy sànq nit ñi itam faw bala ngay def daal loo xam ne lii da nga boole nit ñi benn nga jubal leen wala nga réeral leen faw nga beddiku nit ñi nekk daru àll àll diiru jamono boo xam ne yow doo ngay nekk da nga wéet doo xaale nit ñi loolu mooy li nga xam ne mooy li xewaan xew-xew boobu bu mu delloo nag ci li nga xam ne moo waral waxtaan wi xam ne moo soqi loolu lépp mu di teggin ñun yàlla ñooñu am nañu seeni teggin yoo xam ne bu ñu matalee teggin yi nga xam ne moo dajale amatu naaj maanaam nit ñi daj àdduna rek teggin yi nga xam ne ñoom lañ leen tëralal bu ñu ko matalee ba noppi ñoom it am na teggin yu ñu war a sàmmonte yoo xam ne moo gën a bari moo gën a jafe nga xam ne suñu borom azza wa jalla du dañ di leen yar di leen yar ci bépp xew-xew ba ba nga xam ne ne mat nañu sëkk ba taxaw taxawaayu doon gi ñu doon yonente bi sallallahu alayhi wa innaka la ala xalqin azimin sooga am ngërëmal suñu borom sooga mat gis nañ ne am na aalim am na borom nitu yàlla koo xam ne nitu yàlla koo xam ne dafa toogoon ba te dafa melawoo woon melaw li ñuy wax murid sadiq daañu waxtaane murid sadiq de yan melo lay amee sëriñ boobu ba mu ca tolloo nga xam ne dafa war a jëf na buutib sëriñ di seeti ko xam yàlla ku mu war a àndal dégg jëmm joo xam ne nit ñi dañu fay rang ak ba ak ren ba déwén lay génn bu génnee ñetti fan lay faj aajo nit ñi di wax ñii dañuy laaj di jox ñii li ñu soxla di waxtaan ak ñii ba mu demee toog fa di fa rang ba waxtu woo boobu war a génn bi mu dikkee bi mu tàmbalee di ko bëgg a laaj mu gis ko ni mu toogee jub mu penku mu tafli mu dal di ne ah waa ji nga xam ne benn notion ci teggin yi nga xam ne moom la nit yàlla yi war a am rek réere na ko mooy ormal bi mu ñàkk warmal penku jële la naa tàllal tànk mu jib mu penku waaye di taf yi mu jumale penku kii daal benn secret suñu borom dénk ko ko daal di wan ko gannaaw da daal di xam ne kon kooku di mu di saada ba xam nan la sëriñ war a mel nan la nitu yàlla war a mel dal nay xam ci kooku loo xam ne ña ko xamul daañu fa toog ak mu ne ñu di fa toog rang ba ak te lam leen di wax wala lam leen di jox wala lam leen di defal du leen àggale ci yàlla def leen di sànk rek moom yàlla mayal ko loolu ndax teggiin ci xol lay dugg xol mooy lan alqalbu mooy tekki xol ci arab moom la ñuy firee xol alqalbu nag du suux woowu nga xam ne dafa toll ne nga bub loxo nekk ci benn doomu aadama cat li lunk jëngatu càmmooñ nga xam ne mooy yëngu bu tiitee wala mu gis lu mu bëgg du loolu li ñu tuddee xol ci tasawuf secret la boo xam ne suñ borom daf koo def ci doomu aadama mu di mbóotam moo xam ne wax lu ñuy waxtaan buñ tuddee xol rek loolu lañ ci jublu sew sew la boo xam ne mu nga jóge ci alamul amri bokk ci secret yi nga xam ne mooy secret suñu borom nga xam ne moom la doomu aadama war a laabal ci ay jikko yu bon ni mu war a laabalee yaramam ci sobe war a laabal yaramam ci tilim nga xam ne doomu aadama bi war naa ruus yàlla di déeyaaleeg moom ci julli wala ci jaamu yàlla bu mu doon ak xolam boobu setul na mu war a sete ba jublu ci yàlla nga xam ne loolu kon bokkul ci ay teggin mooy setam boobu xolam boobu mel na mu war a mel mel na ñàkk mel na mu war a mel maanaam ci salte ci jikko yu ñaaw ba noppi muy jublu ci yàlla moo xam dafa tàllal loxoom di ko ñaan wala dafay jaamu yàlla di julli wala dafay woo wala dafay wër kaaba ga wala dafay def leneen lu mu mën a kon ba nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala moo ko def ci lislaam muy lu mu war a jëfandikoo nan lay laabale xol bi bu fekkee ne bëgg naa jëm ci jaamu yàlla googu laabal xol ci li gën a jege moo di tuub tuub ñetti sart la am na nga rëccu li nga defoon te fas yéene bañ caa dellu mukk te na la naqare bu tuubee jéggulu suñu borom soo ko war a mën a ni nga xam ne kon laab bu muy julli jàpp na laabal yëreem ak bérébam jublu kon noonu la war a laabale xolam ci delloo ci màggu yàlla gi teewlu ko ci xolam jéggul tuub ba yaakaar ne xolam set na setu mu waxkat soo ba jublu ci borom tabaraka wa taala kon mu jéem a itam bañ bu ko mënula dindi itam ci saa si mu bañ jikko yooyu nga xam ne nekk na ci moom jikko yooyu daañu ko waxtaane muy jikko yi nga xam ne moom la sharia ak ŋàññ moom la lislaam ŋàññ te muy jéem fu mu toll jikko woo jikko yi suñu borom sant ndax suñu borom kat jikko rek li muy yonent li mu fonk yépp ak ñeneen nit ñu baax ñi taggewu leen lenn lu dul jikko ju rafet inna wajadnaahu saabiran ni'mal abdu innahu awwaabun yonent moom la tagge sayiduna ayuba alayhi salaam naka noonu yonent yi nga xam ne tagg na leen ci alquran yépp jikko yu rafet la leen tagge naka noonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam daf ne ko wa innaka la ala xulqin azimin amee nga jikko ju mag kon suñu borom jikko lay tagg ci doomu aadama jikko mooy li mu fonk kon xol bu setee ci jikko yu bon fees ak jikko yu rafet yooyu ñu takkal ko ba mu mel na mu war a mel kooka mooy ki suñu borom gërëm daan waxtaan wi dana leeral loolu bu soobee yàlla daan wax gànnaay yi nga xam ne moom la doomu aadama di xeexe bakkanam boobu ba yooyu dañ ci moom ba mu dugal ci moom ci boppam safaan yooyu te mooy ñu gën a rafet ndax ni ma waxee ne noonu la taggee ayuba noonu la taggee ismaila ak idrisa ak daa ñoom ñëpp noonu la leen taggee taggee ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu war na itam ne doomu ak alaxira amul dara lu fay jëriñ nit lu dul ci indi xol bu sell mooy xol bu sell ci jikko yu ñaaw yu sell ci boole yàlla dara doomu aadama bi war a di war a dimbandikoo kon tudd yàlla bu bari ak di wéet di xalaat xalaat jëmbam xalaat ëllëgam xalaat sa mu jëm xalaat li mu def xalaat nan lay mucce di farale wéet te di dimbandikoo léeg-léeg xiif ak ñàkk nelaw mooy wéy kon bakkan di noonu boo xam ne ci lu koy alak rek lu koy jëme te muy loo xam ne doomu aadama war na koo tàggat ba borom googu mu bon ak ñàng googu mu ñàng ak met googu mu met gëpp mu nooyal ko ba dutu ko yàqal dara ci li ko yàlla sant mu def ko dutu ko melaw itam melaw woo xam ne moom la yàlla bañ al axlaaqul muhammadiya nag mooy jikko yooyu xam ne moom la yàlla gën a sant mu mat ci jaam li ñu tuddee gis bu rek la ko mën a amee moo di xëcc bu ko yàlla xëcc te xëcc googu dafa am ay sabab yoo xam ne moo ko war a waral xëcc xëcc googu bu amee fatx moo ca war a topp gis bu ak fatx googu ki ko am mooy ki mucc te mën a dimbali mën a xeet leer léegi meraw mu di saadat bu nga ko seetee ci li njëkk a tàmbali moo di nit ki dana xam màgg gi suñu borom màgg ak foor gi mu foor ak diis gi mu diis ak sañ-sañ bi mu sañ ci doomu aadama bind ko te fu ko neex jëme ko te lu ko neex jëfandiku ci moom te du ca ragal dara du ca seet ëllëg dara lu dul la ko neex lay def mu seet jaam bi li war ci moom ci digganteem ak yàlla ci ragal ko ak fonk ko ak jaamu ko ak teewlu ko ak bëgg ko ba mu ko booleeg dara mu seet ne loolee mënu ko seetit bakkan bi nga xam ne dafa jëm ci di fanq luy tax mu mën ko mu mën a jox xàqam seytaane itam gemb bànnee xam gemm adduna nekk ci kanamam yépp di ko wakk ba bëgg a tax li ko war ci digganteem ak yàlla bu ko mën te bu ko mënul nga xam ne exposé na boppam ci jëme ci alkande jaam ji jaam bi nga xam ne xam na loolu ragal itam ne moom du mën a matal xàq jooju mukk te bu ko matalul musiba da koy indi mu seet ne mucc moomu dafa am bunt te bunt boobu ci doomu aadama lay doon joo xam ne day dem jébbal ko boppam ni ma misaale woon sànq ci ni aji tawat bi nga xam ne jaaxal na ci boppam ni muy dénk borom médecin bi nga xam ne moo koy faj muy seeti kooku nga xam ne balay gis kooku ci diggante bi mu koy wër te gisagu ko melo yi nga xam ne moom la war a melowoo mooy muy teewlu loolu ci bakkanam ci boppam toujours fu mu toll di ko def ci xolam bari tudd yàllaam bari ay xalaatam ëllëg bari ay awraadam mooy tudd yàlla tudd yàlla ku nekk xam ne ne turu yàlla mooy bëreeg seytaane seytaane lépp luy bëreeg moom war ngaa bari ndax seytaane du sonn mukk te waxtu woo ko daanee mu jógaat gën a ñàng gën a mat ëpp doole nam meloon te du tàggoog yow du ba nga ca ba nga xamee ne yaa ngi xar-xarle ba bakkan bi rot seytaane du du tàggoog doomu aadama du mukk te du naagu mukk fu mu toll yaakaar na ne dana ko mën a xëcc ba jëmee ko ci yoon wi nga xam ne moom ci la jaar sax sañoon ci la ñëpp di jaar murid saadax bi day xam loolu lépp teewlu li nga xam ne noonu la situation bi critiqué bi nga xam ne daal mu ngi nekk ci xatar mel ne ku nekk ci kéeméju kàmbu safara goo xam ne gii ma ngay jëmbax li xam ne bu xefee rek daanu ca biir mu xam ne noonu la xaalam deme muy wut nag boolee farlu googu muy farlu di wuti ki nga xam ne yaakaar na ne dana nekk fi moom buntu xettali ko xettali bi nga xam ne moo tax mu mucc ci yooyu bu buy wut cheikh murabbi boobu noonu la war a melowoo kooku nga xam ne melowoo bu ko matalee ba noppi waxtu wu àggee ca kooka nan la war a melowoo moom la sëriñ bi wax ne wa kun la da cheikhi ka maytin wudaa bayna yaday xaasilihi kam tasaa boo àggee fi moom da ngay mel ne ci kanamam néew bu ñu tëral boo xam ne du yëngu du wëlbati ko du def dara lu dul ki koy sang moo koy bittar ñi mooy yëkkati loxom mooy yëkkati tànk bi moo koy defal lépp lu mu koy def noonu nga war a mel ndax dafa war a moom murtaadix bi dana teewlu dana xam ne sëriñ bi dafa nekk ci xadaratu rububiyya sëriñ bu mat sëriñ toujours nit la koo xam ne jaam la bu nekk ci jaami xadara ba te xadara ba mooy pay yàlla bi nga xam ne respect ba ca war nit ci mënu ko moo tax waxtu wu nekkee fi moom dana war ci moom ormal boo xam ne bii orma bu jafe-jafe sàmmantee la te dara lu ca manqué rek ak loram lay indi ndax sëriñ bu fekkee dafa nekk ci xadaratu xadaratu rububiyya ni nga xam ne noonu nga war a sàmmanteeg ak ormaam boo toogee ci moom noonu mooy na mu moom ci bopp na mu sàmmanteeg orma boobu noonu war nga koo sàmmante diggante na orm moom itam ormaam loolu mooy tax nga jëriñu te doo gaañu doo yàqule moo tax Cheikh Ahmadou Bamba ne wa kun la da cheikhi ka maytin wudaa bayna yaday aasilihi tantafi ñi nga xam ne xamuñu luy tasawuf te xamuñu lu dul yoonu sëriñ bu ñu déggee loolu dana leen jaaxal mën naa am sax ñu dem ba weddi ko mu ne day ñàkk xam la ndax muy mboolem yoon yëpp bu ci nekk ñu ca bind te xam yàlla xam sëriñ ba bind nañ ko muy yoonu tijaan muy yoonu murid muy yoonu xaadir muy yoonu yoonu chazil muy yoonu daba daba képp bëpp doo ci xam ne gis nga seen i téere te xam seen i secret da nga gis ñu bind ca loolu ne noonu la demee kon nag képp koo xam ne kii weddi nga loolu wala nga jéngat ko sa ñàkk xama ak sa réer dol nga xam ne noonu nga war a sàmmanteeg orma yi béréb boobu nga xam ne waa ji nga xam ne dafa bokk nekk abdun min abidil xadrati noonu la mel noonu nga war a demee tamit ci soppam ndax sopp daan dem ci kanam waxtaane sopp yàlla li nga xam ne noonu lay demee ci doomu aadama ak nan lay xëccee ak texe ak ni jaam ñi rawante fa kanamu yàlla ndax ni ñu rawante ci sopp yàlla ci seen xol noonu nga xam ne itam noonu la dëggoo comme ni ko sëñ bi wax ci sopp bu mu sopp sëriñ bi nga xam ne mooy buntam bu jëm ci yàlla sopp bi nga xam ne noonu la ko war a sopp noonu la itam taalibe yi di rawante ci rawante gi di rawante ci diggante sopp sëriñ bi ak lépp lu leen di xamal nañ ko war a soppee ak la ko noonu lañ ca rawante ci sopp noonu lañ rawante ci jëriñu ndax nit ki li nga xam ne doomu aadama ci nekk digganteem ak ak buntu maanaam ki koy wan buntu yàlla na mu gën a soppe koo xam ne njëriñam gën a bare waaye kooku moom sopp dam ko sopp sopp gi mu sopp kooku moo ëpp njëriñ maanaam taalibe bi sopp gi mu sopp sëriñ bi moo koy jëriñ waaye sopp gi ko sëriñ ba sopp mënu koo jëriñ ndax sallallahu alayhi wa sallam ci boppam alquran ci alquran suñu borom nee na ko innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yashaa wa huwa alam bil muhtadina ki nga sopp ba yéene ko njub taxul nga mën koo jubal yàllaa jubal ki ko sopp waaye nag ki nga xam ne moom moo la soppal boppam kooku moom mën na koo jëriñ yàlla nag moom ci boppam moom mu bëgg jaam bi moo gën jaam bi bëgg ko yàlla moom ku mu bëgg xëcc la jox la texe kon yàlla mu bëgg la moo gën nga bëgg ko sëriñ bi nag nga bëgg ko moo gën mu bëgg la ndax ci bëgg gi nga ko bëgg la gën a mën a jëriñe waaye bëgg bëgg gi mu la bëgg moom mën nga cee jëriñe comme noonu ma ko misaalee ci am boo defee boo nekkee ci kanamam xam-xam boo mën a am farlu boo mën a am ci jaamu yàlla ak lépp mën gëm boo xam ne seet nga ko ba mu leer na la ne kii benn la ci sabab yi yërmande yàlla ñu indi ci kaw suuf ngir xettali jaam ñi loola lépp nga teg ko fee ndax waykat bi wax na ne wa man ankara aqtaama bil ilmi qul lahu misaalan mbirum bala am xam-xam jërul damu bala am ibnu baawa dañ ko waxtaane ci beneen conférence nit la koo xam ne suñ borom dafa ubbiloon na ko buntam mu jaamu yàlla ba am leeru xol nga xam ne waxtu wu téenee kaw asamaan dara seen juróom-ñaari asamaan yi seen arasa kursi yu nga xam ne ab jotaayam lu mat ñett téeméeri borom xam-xam daana fa daje mu di leen waar di leen leer waaye ci kaw jàdd bu mu jàdd benn yoon jéng jëm ci àdduna suñu borom alak na ko réeg ci ngëm ga réeg ci xam-xam ba ba nga xam ne dem na ba bind taalif ak téere ci wane ne yàlla amul nga xam ne kon kooku suñu borom tànk na ko tànk bu doy waar biir siis bi itam nga xam ne dafa farlu woon ba wàcc nit ñi dem dëkk ci àll ba dëkk ci ay xeer di jaamu yàlla rek ngir wattal lu ko yàqal moom itam misaal ni dana gudd ndax waxtu moo ko laaju bu fi xaj ñi nga xamee ne moom it ci maanu suñu borom nga nen la ko delloo ba mu nekk ci noonu yàlla yi bokk ci ñu gën a texee di loolu moo tax waykat bi ne képp koo xam ne yaa ngi wedd subbul ak taab yi ngirub xam-xam nañ la jox misaal rek na nga seet bala am képp koo xam ne wan nga leen gannaaw itam ngir sa farlu bu nu dee bu nu la bëggee convaincre nan la woon rek mbirum biir si nga xam ne ci aw dëgg la daan lëmu nga xam ne kon suñu borom nga ne lam ku ko soob la koy jox waaye takk na lu nekk buntam boo xam ne ci lañ ko war a jaare teewul nag ba tey loolee ñoo ñu jaaroon mooy buntu mucc lu suñu borom digal nit di la te mooy li nga xam ne borom